टक करे बच्चे ci nekk ci turam ak santam ñi ngi nuyu suñu gan ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci yeneen dëkk yi ay Sinja ak euh, Popenguine ak Ndayane ak Kiñaabu ak suñu directeur boobu toog ak ñoom waa Dakar ak Ablaye Ndiaye ñu ngi nuyu ñëpp waa alfa Dep Alpha ñu ngi nuyu ñëpp di leen wax ne jigéeni Joal Fadiouth kontaan nañ ci bis bi tey di gërëm tamit mooy ñi nga xamante ne mooy suñu rajo yi taxaw ak suñu télé yi ñu ngi leen kontaane ak suñu ngoyaan bi mun na maa ibbil tuuti rek gan ñi parce que waa mairie comme ñu ñëwaguñ tamit ca te ndaw yi la ñu bokk kon mun nañu wax ne suñu gan ñi ñu ngi leen di dalal ak jàmm xëy na bu ci kanamee dinañ ñëw wala dinañ gën a xuus ci waxtaan bi ak yéen kon comme ni mu ko waxee rek ñu dem ci li nga xam ne mooy hymne national bi ñu commencé programme bi guddi na te ñeneen ñi ci des waa bàkku réew mi comme ñi ci dess fi dem dafa sori kon ñu teel ci djublu rek ndax ñu teel a wa na ñepp and tey xalam yëngal junjung yi nga yëg bi ngar na mooy bi ni beret ak dolem lepp luy lëndam ho di jant njàqare yi di jant yaakaar jóg leen taxaw doomi nday Afrique daje na ñu àndandoo boole xol yi jëmu doon benn yéen samay mbokk yéen waa réew mi jóg leen ànd boole géej gëti ndox yi ànd boole àll manding mi na njàmmu ñeel Afrique suñu réew bii tay ji ñu jigen jigéen ñi tay bés bu xat la fi jigéen ñi nga xam te fi tok tay ji dañ leen di wax ngacc ngalam ndax euh bari na bërepp yo xamné ne ji ñu ngi fay euh, magal bésu jigéen dëkk bu ne yang koy magal, dox bu ne yang koy magal kon tay suñu ñëwé fi Euh, ànd ak alphadev mu nga ne di njiit di mooy euh, Mor Jaxate mooy sunu directeur exécutif tey jii def déplacement ak dérangement jóge ba Dakar ñëw teew si fii tey jii ànd ak naataangoom bi di Inda Santé kooku moom kenn du leen ko présenté ndax Inda euh, Santé moom ci biir Joal yaakaar naa ne ñii juddu tey sax xam nañu Euh, ànd nag ak sunu personnel bee toog ne sunu suivi évaluation bàcc ma nga nee toog Fatmata Soli ma nga nee toog kooku sama kal la ñoom ñëpp ñu def déplacement ak dérangement ñëw toog fii borom koppar gaa nga nee toog karaama nga nee toog muy délégation boo xam ne bu mucc ayib la jóge Dakar ñëw fii tey ci xat-xat bi nga xamante ne nii ne tey jii ku ne nemmeeku na ko fi jamono tollu kon ñom dañ leen di jaajeufal lima waxon sank rek president dalal na leen legi du ñak dina ñew sax dalalat leen ndax gan gu rëy soo ko amee gan de taille kooku doo noppi di dalal ñu leen di jaajeufal nak yeen jigéen ni di wax ne tay ni la suba bésu jigéen ni la ginnaaw suba bésu jigéen ni la ñun suñu bés jeex ñom mom bés yëpp ndax ñun ñoo ne ñun ñun la. kon rek dañuy wax ne ah dara du ñun kon tey buñ ñu ko jaglelee ñu ñëw taxaw fii tey jii naam folklore bi nag day neex macha allah ndax day gunge bés bi waaye day am yu am solo yoo xam ne bu kilifa yi ñëwee toog war nañoo mën a ñëw nag waxtaane ko fi eh, xool li nga xam ne moom nañu weesu woon li nga xam ne moom moo fi nekkoon rëq-rëq ñu war koo jubbantiwaat ngir jigéen mën a moom bopam wala jigen sax mën meunal bopam sax nak ndax autonomisation de la femme lañ wax kon tay suñu toogee fi tay ji war nañu waxtaan ci loolu li nga xamné ne moo ñuy kanam. nga jàpp naa ne li ma doon wax mané bu né investir en faveur des femmes rek amna lu bëré lu né lu muy wund parce que lu tax ñi wara investir en faveur des femmes manam gëna ñogal li nga xamanté ni ñi ko doon def ci walu koom jëmele ko ci jigen ñi. lu tax ñi war ko mën a def parce que mooy li faatu Guewel wax sànq te yéen tamit si seen biir taxawaay ngeen wane ko parce que bu ñu demee ba naan jigéen mooy développement dafa fekk ne gëm nañ ko parce que taxawaay gi fii Daaru Salaam da koy wane taxawaay bi fële si Joal da koy fii si Joal da koy wane ak fële nga xam ne mën naa ne lu jin njaag ñooy njaag mi waa Popenguine mi waa sinja mi waa Kignanbour mi waa ndaayaan ñi nga xamante ne tamit jëf ji ñoom ñi ngi si boobu ba léegi.

rafet na ba nopi té li ni ñaan moy mu gëna rafet di leen xamal ne ni leen doon gungé demb ak barki démb tey leen ko gëna mëna mën té mën te fas nañ tamit gëna a gëna labali a pour manam li nga xamanté né finalité bi waaw li nga xamanté né finalité bi mom lañu bëgg mi développement localu gox bu nekk mu mën am fu nekk rawati na fi ci Joal ak gox li nga xamné ne bàyyi leen suñu mi wa waa Popenguine ak wa Sindia donc di leen encore une fois di wax ne fête bi comme que neex na ba pare man mënu ma fi jógee te mayoo ma ay pooj parce que tey ni mu demee nii maanaam sama xool sedd na daal daanaka waaw kon tey nga ne <laughs> non loolu du problème parce que am na maa ngi tuub tamit am na loo xamante ne waxal nan ma ko mais dafay dafay baax tamit ma waxaat ko sama gémmiñ parce que dafa am ñu ma àndal dama àndal Marie-Louise ànd ak Mamadou Samb

même ñi nga xamante ne nii ne dañoo toog seeni kër doon dégg liggéey ba te jotuñu cee woon a bokk sax suñ ko fësalee ci anam yooyu lee mën nañ fee toog xam njëriñ loolu nga xam ne moom la liggéey boobu wundu mu am nag troupe théâtrale boo xam ne mu ngi fii ñu bëggoon ñu ñëw dugg si rekk si diir bu gàtt rekk ñu ñëw fesalal ñu li nga xamante ne nii ne tey jii moo ñu fi dajale ci li tem boobu wundu ñu ñëw won ko ñi nga xamante ne nii ne ñoo fi toog kon waa troupe boobu ñu ngi leen di dalal di leen wax bisimilah. ñu groupe sargal sa jëkkër ñoo fi ñëw tey di leen wax ñun li ñu naqari parce que jigéen ñi xam ngeen ne jigéen sonn na jigéen moo nekk ca kër ga jigéen mooy éduquer xale yi jigéen mu ngi ca njàngum xale ya jigéen mu nga ca goro ba mu ngay fóot mu ngay paase mu ngay sang mu ngay raxas xanaa kon jigéen dee na góor ñi moom xam ngeen leen mhm. ci nekk dañoo def seen tànk muy mel ni bar nga lu maaba ku la ci jox 2000 foog ne 10 000 la la jox te 2000 bi lu nekk lañ ciy laaj nag liñ ci xamul. di weccat jeetee ma joxe ko ci biti am ci gannaaw. waaw waaw. xam nga ne góor ñi moom loolu rek lañ mënoon ñun. dëgg la li ñu naqari nag tey li lañ koy wax xam ne ñun ñoo ko moom lu ñu naqari buñ ko waxul tey dootuñ ko wax. dëgg la lañ koy wax kon fi nga daaneel rek foofa lay tàmbalee mm-hmm. ku ne xam ne ne jigéenu Sénégal ay jàmbaar lañu. rawatina nag jigéen ñi Joal Fadiouth dañuy teel a xëy te ci di guddee waat boo demee ca tool ba jigéen ñaa fa nekk di dóor seen waar. boo demee ca tan ba jigéen ña ña nga fa di dóor seen waar. kon nag ñun jigéen ñi dañoo war a yëkkati ay financement yu dëgër jox ñu ko ñu liggéey. ndax ku ne xam na ne xaalis mooy liggéey xaalis waaye ay financement 300000. deux cent mille loolu fajul dara nañu jël ay millions jox ñu ñu takk suñu ndigg fa seenee dem ñafe ji

ku ne ni na ne ci développement la ñuy dox te boo nee jigéen danga naan développement ñu dagal ñu ay hectare yu bari dagal ñu ay hectare yu doy jox ñu ay million. jox wala ay milliards ñu def ci maraîchage bi ah ah ñun jigéenu Joal Fadiouth sonn nañ soxlaatuñu sax nag financement fond lañu soxla fond ay millions yu baree baree bare ndax buñ la joxee benn trois cent mille wala deux cent mille nga dem dépassé ko mbaa nga nattee ko xaalis ba jeex mu dikk ci say loxo muy turu financement ay millions nag la ñu soxla wala ay milliar amiloo ma yokkal ni la ñun groupe sargal sa jëkkër bii kuñu xam-xam ne ñun ay jàmbaar lañu ñun kenn du ñun ci mim réew dañuy teel a xëy teg ci dugg deewaaj Sénégal d'accord ne ñun jigéen ñi ñoo yor réew mi d'accord ne jigéen ñi ñoo yor réew mi waa Sénégal waa jatu ay waay ndax man damay bëgg a joom mi mbooloo mi waa jatu ndewe man waa kër goo xamante ne nii mënoo fees man picc yi laa fi gis satala yi mais man harama ma sa bop ndox. nam di jay nam nam bul tànk ma ngi ni nam jatu jatu ndoy lan la. fay bi ram jatu danga ma xeeb wala affaire bi lan la. ay fay duma la mas a xeeb. jatu ndoy xolal man te xolal fe la tollu imam bi sax daf ma muju woo ma yow loy nodd. ma ne ko dinaa nodd. ay keur go xamantene ni bo ñewé mëno mënoo fay fekk sax lire bu la may ndox nga nan ay fay jatu dama la tak takk li ci keur gi ay way dégg nga ma. bëgg naa saa bu ma see fekk la fii nga daw. Mhm. songu maag potum ndox sukk sa bëti sa ñaari bëti oom. wallaay fay biram ni ma nijaay naanal. wallaay fay loolu dëgg la nga demoon. ay man day fay biram. ah groupe sargal bu fay biram yokk ah ah waaw du ma la tàgg gërëm la. ma laa la wax tey du ñu ne xoori. waa groupe sargal sa jëkkër ñoo woote ndaje mu am solo moo xam ni. groupe la. sargal sa jëkkër. ah ndaje mu am solo. pour wax seen doléance yi leen naqari ci financement yi. ndax dañ leen a war di yokkal ay financement ñu man di ñafe di teel a xëy tey guddee wàcc comme niñ koy defee saa su nekk niñ leen ko xamee mhm. amiloo nag moo fi jaar sànq ni ma ndaje maa nga ne commencé na kaa ñu ànd ay ay man damay bëgg amiloo nga ma ay ndijaay xam ne dafa tëj jëkkëram ay ay dogub téeg ba li ngay wax ma ñëw man maa war a wax Yatou Ndoye ma ne le 8 mars bii ba ngeen ko jàppeeg léegi ëppul une semaine ëpp na une nee ma waaw. ëpp na une semaine. waaw luy yaayi nag man tàggu woo ma ne ma damay dem ci le 8 boobu. ay ndijaay xam ne lii ci koñ bi la rek soriwul. man a xaaral ma dem ba ñëw. xanaa gisoo suñu mosee xonk yi ñu takk sax pour wane liñ ma xari. wax ji yëpp ba ko yàqee. ba ma ne amiloo. amiloo dafa tëj jëkkëram. ay waay amiloo day bàyyi ba jëkkër ji xëy mu dab ko. utub morso di ko ñeent ma la ma ci yooyu dama bëgg nga ma sama cër. ay dama lay wax ne la man bokkuma ci góor ñi nga xam ne dañuy takk jabar boo xëyee ñu xëy man nekkuma ci yooyu. ay fay dama laa takk teg kër gi. ma toggal lu neex su ma ñëwee nga yegg. fay may ma ndox ma xëppoo. wallaay ndox jox ma ma naan boo bëggee ñu ne ci jàmm. wallaay fay dëgg la amiloo nag dafa tëj këram. ay waay déet. yow. Mhm. amiloo jóge këram lonkaale la. wallaay bëgg nga tëraale ma. ay déet da nga essayé rek di yéeg dama xam ndaje mi ci koñ bi la te comme jigéen laa fi laa bokk. ndaje mi na it ne ci buntu kër gi amiloo yow sa dàll ndajoor yi war nga boo ko bëggee sol nga tàggu ma ni ma ni yaay dama bëgg sol sama dalu ndijoor bi dëgg la fay dëgg la sey legi yi ngeen di sey ak sey yu jëk yi du ben man ñoo ma ci yoyu de ay fay biram bu la li ma la wax rek waye nak def nga euh, fi ne ni da ngay làmb def dafa may ma tuuti lo ma ñew gis ah, nga lu xew may ma rek lo bëgg def li jaay defal ndànk defaguma la dara gis nga bu ma la baye ni ah. bu ëllëgé nga def njombe lu lu lu ah, gën raw waaw fay biram penda waagan lo bëgg def xana dama bëgg taral xana tay ci biir marché bi ah cum tey sama nijaay man xamoon naa da ngay rek may ma tuuti rek abilo man xam naa ni man rek nga bëgg waa déglu ma nag bu lool weesoo aha gis nga may mbay may ca kër ga waa ni mu def Modou Faye noonu nga ma bëgg a def ëpp naa am daa jël yeew ko ci tànku lal bi lu mu ko wax loolu lay def ay ay waay dégg nga man yooyu ma waa yow lu muy def ni abilo tey ma billahi wallahi dinaa la nugal ba dëkk bépp yi nga nugal naa la nii la ñuy def di naqaral seen jëkkër yi fooy dem duñ fu leen neex la ñuy aw duñu tàggoo seen yoon newu ci yow ku ci faratus lëf rek ba xaw raw sa jëkkër waaw coow li daal Diouf xam nga ko. fay fay fay fay fay ah yow fu ñu la fekk yaa ngi kaas. taxaw ma nii as. Ah, ah, yow nag bu loolu weesoo namm naa la dama laa gëj a gis lool. maa la raw moo tax ma seet si la. namm naa la de wax dëgg ne xew. lu xew lan la. ah xam nga li xew. bàyyi aas. xaw ma i Hadj Lewa Diène lañ lay wax xaw ma noo tuddati. waaw ah. da ngaa ci dëkk bi ba sa tur wi sax dama koy fàtte. déet takkal doom bi ba noppi. ndombo téel ma nii mi ko. non ndombo yi pour lan la woon yow. waaw pour lan la. waaye dafa mel ni da nga doon doon. Ah, dama doon rey. yàlla naa ci bis ndox mu sedd. koo doon rey ndax bu dawutoon. Eh, nu mu mi sama soxna si tur wa sax ko. kële la tur ku jëndoo ngay wax. jotundoo yi ya. jatu mere naa ko mer moo xam ne turam bi sax Diouf bëggatuma koo tudd Diouf Diouf Ela si la woo moom naka jekk nii la mel dafa waxal waxal problème da ngeen yéen da ngeen bi ngeen ma attaqué moo rëy da ngeen di def ndànk nit boo koy laaj problème ndax boo ko attaqué noonu waaw waxal ah waxal jatu ndooy fii laa ko takk teg ko ci kër gi waaw ko jatu bu ma la nee mbaxal mbaxal waaw domo daa domo daa kaldu defal ma kaldu jatu ndooy daal yow ndekete bu ma nee yokk ah. mu ne yolas dëgg ba yàlla weer ko nag ma ñëw ci kër gi ah. bëgg a poos ndox yow góor yi tey ñii ku ci ku ci liggéey ba ñëw daanaka buy dugg buntu këram égiwu température am bi mu ngay yéeg waaw ndaxu naqar ak coono ak ñàkk bu xaalis ma ñëw ci kër gi yaxaw bay bëgg a dee gisuma ku ma may ndox ma naan uh-huh. jatundoo yow sangu gisuma kenn maa mujj fokk siwo bi di tàngal sama boppam ndox yàlla mi dara teewul jatu ne dara ne ma ma huit uh, lan 9 mars boobu 8 mars ñi def waaw loolu loolu feetu jigéen ñi la jigéen ñee ko moom waaw bu dee feetu jigéen ñi nag loolu dernier sa jéem a tàggu la kay de 8 mars bi du fi as bu ma léewoo bu ma tàggoon du demee noonu bu ma tàggoon doo ma ci fekk may kaas ah, daa tàggu daa yolos dem yëguma ko mati loo la xaw ma ami loo xam nga gis nga ni mu mel ak jëkkëram moo koy solal tubéy uh-huh. moo koy dab di man néew ma ci yooyu daa jógee daa jonge Ami Lo ci boppam daa jonge égali waaye loolu du jonge yow Diouf du loolu sa naqari la nga war a bàyyi ah man nag li ma lay wax mooy takkuma jabar pour muy xëy may xëy dama koo bëgg a ba ci kër gi di xëy mu toog xaar ma coow la feram ko laayu la ah fay deet coow yow dootoo wax de da nga ci am solution deet dootoo wax kon waxal yow mi moom wax waaw waxal ah waxal rek

jigéen ñee ko moom xanaa xamoo ne weer wi le premier bala trente bala trente cinq sax weer wi jigéen ñee ko moom ñun dañoo wax di boot jigéen ñi ak a neng nengee parce que ñoom gannaaw yàlla yonte bi ñoo ñooñu fi nekkal bul wax fay dama bëgg nga xam ne jamono dara fay ba yow sa classe gii ñoo tax jigéen ñi mam waaw déglu rek déglu déglu naa yow xanaa xamoo ne jamono ji ñu toll ni yow fay nit ñi dañoo nekk si jamono solidarité góor mënatu la def li li war ci gi yëpp jigéen la ciy jàpp bàyyi jigéen di liggéey bu fekkente ne nii nga nar a dundee sa àddina rek yow jàppal ne jamono ba la gis nga fay man bu ma leeroon na lii nga may addiwee kër fay naa ma dama ko su ma xamoon su ma xamoon sànq du ma jox liggéey bi ko bu ko jox ndax yellawu ko non garaaw yow wuy ma wax ma loolu sax xam danga may déglu door jigéen daa xew danga bon yow foo gën a guddoo jigéen léegi yow bokk nga ci li tax jigéen ñi naan ñeteku ne ci lu leen neex sa classe ga yàq jigéen da ngaa ñàkk ful la. wax ko li nga wax ñu waaye léegi yow nee nga doo sànni ni nga hmm. baa nga wax li ma dem ñibbi sama yow nag dama laa gëj a gis El Hadj Lewo foo ne woon ci réew mi maa ngi woon Dakar Ndakaaru Njaay gi waaw am nga tee de déglu ma am nga tee moom barke borom Tuubaa ah. ca Dakar ci benn entreprise laa nekk yow mi waaw ñu may fay chaque mois deux cent cinquante mille deux may ma deux cent cinquante mille. waaw Diouf loolu mooy ñaata ci wala. fukki junni juróom fukki junni. yéeg nga yow mënoo ñàkk te. yaa ngi dégg léegi nag déglu ma. waaw déglu ma. ñëwal yow rek lay déglu. ñoom dañoo soxla chauffeur. Hmm. sama xel nag demoo si kenn ku dul yow. ca Dakar waaw. eh woya ndax. xam nga Dakar bay ne chauffeur. mais moo ma yéene la dëgg la ma ne woon comme tey la. huit mars bi mhm. ma ñaan sama ma ñaan permission pour ñëw waxaale la nouvelle boobu noonu ah <laughs> yow Diouf téyel ma tuuti hélas lewo mi <laughs> gëj na maa tàngal yaramam xam nga ñoo ngi dewandoo daf maa mel ni ku may bëgg a fàtte. du loolu may ma. <laughs> waaw déglu ma nag mooy déglu ma waaw. tubaab waxut lu leer mbokk laa lay tëgg. programme bi yàqu waxal lu leer. waaw dama bàyyi rek yéen kay yéen bàyyi ma yeggali waxal lu leer yow dama saa Diouf Diouf nii rek nii rek boo waxut lu ndañ laa lay tëgg tàngalu jeex parce que sëriñ Tuubaa Mbàkke waxal waxal rek man damaa xam ni li may nekk chaque mois di la envoyé ay trente mille ak vingt amul la njëriñ dëgg la léegi ñu wax ma ko ma ne kat man am naa sama wóolu boo xam chauffeur la dëgg la te gannaaw yàlla kenn daaku laa dawal xam naa si dawal cee toog moom loolu moom laaw laa jaat laaw laa maa laam na waaye nag ah. jigéen na ma jiite ci ci entreprise bi ngay liggéey. moom mooy fay deux cent cinquante mille chaque mois. waaw. waa kooku yéen teet teet teet teet aywaay yow kay waaye yow jigéen jooju nan la def ba dépassé góor ñi bay ba bay fay góor. di nga kooku nag kooku ku jël kaw noonu. jëkkëram daa melul ni yow. wallaahi jëkkëram daa melul ni yow da koo bàyyi muy xëy liggéeyi ba mën a am weer deux cent cinquante di fay téeméeri nit weer bu dee mu fay leen juróom fukki yow sa jabar ji da nga ko yéenewul lool. sa jabar ji yéenewoo ko dinaa nga jël kon nag yaa boobu la ba sa jabar ji mu liggéey dem jël salaire boobu foofu léegi la mu tax mu dem ñoom nga koy nga koy dóor léegi hélas lewo li ma bëgg nga bàyyi xel mooy gannaaw ay jàmm. maaleykum salaam. taxawal ni. Ah. ay jàmm. Eh, déet déet déet. dëgg la dëgg la yow yow Jibi. yow da ngaa bay dóore. yow doore daa xewati ci mim yow gis nga góor guy door jigéen laal ko seet doore njëkk doy ba tuddee suñu bopp groupe sargal sa jëkkër bu ma lu leen di doy doy ko rek eh? way eh, eh, sama nday ay xew ay sama moo jami yàgg ta wér wax waaw dal leen jàmm fair play fair fair play ginnaaw ay jàmm te gis nga li ma bëgg ngeen bàyyi xel mooy dafa am Noël bu ñuy annoncé fan yi yëpp war koo defal jigéen waaw góor gu ne mm. war ngaa sa jabar ñu ne déet nga yëkkati ñaari junni ne ñeenti junni la léegi nag ñaar sax laa ko def xam nga man xaw dama xaw xam nga la ñaari ginaari ordinaire neen ñoo ci sama iya, bi jigéen yow yaay jigéen sa melokaan doy na ma ba tax nga yéem ma abadan gis ma keneen ku dul yow jigéen ju am fulla ak fayda xàmmeewu ma ka ca tool ba ca biro ba ba ca wàññ wa lépp daan sa doole rekk ngir njaboot njaboot gi xiif di waral yenn saa yi nga ngay ne mbedd mi mbaa ci tali bi. gàcce nga laa ma jigéen yow mi dékk suñu naqar jigéen yow yaay jigéen yaay bàjjen baay yumpaañ sargal la war na bépp góor yoonu tool miin saw ñaq yoonu teen dékku na say tànk billaahi yaay càppaacoli xamuma woon ni yaay fomp rangoo ñi jëkkër saa yi amee jafe-jafe yi àddina yaay ki yeewu fajar faale woo sedd baa muy taw ngir rek njaboot yaay boroom jam ñoom mi dékkoo moo tali dépense boole kook saytu njàngum doom digg bëccëg nga taxaw ci tali bi sol say ceppit di yoonal yoon wi naaj wi tàng lool nga taxaw di sàmm jàmmi askan wi ku la xamul di la wuutale ak a xas ku raw say moroom sante ko sa yaay jaaraama baay yow mi ma tànnal yaay ju baax jaaraama jaraw lekk soxna si jaaraama yaay gàcce nga laama jànq kumba dox leen bu leen dara téye dox leen bu leen dara téye jaaraama yaay dama tàmmul wax si mbooloo loolu moo tax waaye dama bëggoon na tamit wax tuuti si soxna Seynabou Dieng suñu yaay bu Dieng xel yépp a ngi ci yow jigéen ju man góor gàcce ngaa laama suñu yaay bu jëng amoon nañ yéene mu fekke lii mag ñi jooy nañ ko ndaw yi jooy nañ ko wéetal nañu waa Enda wéet nañu waa Daaru Salaam wéet nañu suñu papa Alaaji wéet na yaay dem nga bàyyi ñu jaaraama yaay jërëjëf yaay yal na ko yàlla yërëm ñu saxoo di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm. man la maman Adama Diouf dëkk Kiñaabur yore cercle bi. li ma téye nii nag code bi jaar laa ko tudde jaar-jaar bii nag waa Alpha Dev laa ko jagleel ak waa ENDA. ENDA di suñu partenaire maa ngi leen di gërëm di leen sant pourquoi di leen sant ñun waa facilitateur cercle yi. ñu leen di sant ba ci kanama yàlla. yéen nañu orienté ci outil bu ñu naan reflet reflet bu ma neexee ma naan outil de résolution de problème outil boobu moo ñu yóbbu ci biir local localité ba nu dëkk ci dugg ci biir population bi di échanger ak ñoom di discuter di trouver ay solution pour ñu mën a. pour mën a saafara difficulté La difficulté yooyu nag dañuy dañ dañuy dañ koy dañuy savoir vivre seen savoir être ak savoir faire Donc, yu bëri installé un fa ay cercle cercle d'alphabétisation fonctionnelle avec à la superviseur de qualité nommé la veillante Assa Keita Assa Djeridjouf. sa formation est... mënoon nga ñu fayeeku mais dërëm defuñ du ko ci def ba cercle boo duggatee jii rek ñu nga fay def ay activité génératrices de revenus maa ngi jaajëfal suñu waa cercle yi muy suñu cercle Kignanbour Popenguine Ndayane Sindia ak waa Joal Alphadef yaa mën boole li tàmbali Thiès ba Fatick Kolda utali Tamba boole nga ñëpp boole nga xeet yu bare wolof séeréer pël ak ñoom seen war nga Sénégal yëpp jërëjëf Alpha Dev yemul foofu jàll na dem be kol jàll na dem be fekk fa waa Caritas yemul foofu jàll dem Djilor Fimela Sundiane Thelem Kër Malick Fadé Dembe Sangako Touba Murit Ndourène Jam Weli Pakala Ngay Dafar Medina Ngayen Interpenc waa Jam Weli waa Jegem Ip ak waa Jaase jàll na dem be dem Jalakoto Misira duga Kolda nuyu waa Ofat Nofare waa Bagadaji jeexale ci waa Aynou Mady vive Alphader vive Enda vive le Sénégal vive les femmes à vous l'honneur. di wax suñu xol sedd na torop torop torop si groupement daru Salam 1 ak 2 si nit ñu téro si ñu terale di len gërëm yéen ñëpp ñi téw si jotaay bi si seen mobilisation bu am solo bi ngeen def jaglél ko tay ji di 8 mars ñu ñëw teewal fi Alpha Dev mu doon mbégte lol lol lol lol si ñun ndax Alpha Dev bis bu nek 8 mars la si mom ndax si li lay yëngutu maanaam lépp loo xam ne rek dafay jëmale jigéen kanam donc bu ñu woowee tey jii ni Joal ñu fiy liggéey ak inda santé ak Horizon 3000 ci programme mu wér-wérle bi daf ñuy jara ñu dagg suñu yite yëpp ñoo marqué 8 mars bi fii si Joal ngir wan leen rek yëg-yëg bi ñu am si yéen ak également yéene bi ñu am si yéen pour gën a lëkkaloo ak yéen pour gën a yaatal liggéey bi te liñ fi gis dégg ko fi dal na suñu xel bu baax a baax a baax a baax. ndax financer ay groupement wala gunge jigéen ñi mooy développement Sénégal te lii ñu gis ci Daaru Salaam gis ko ci Daaru Salaam 2 jàpp nañu ni koo gënoon a yaatal coono jigéen bi dina mën a wàññeeku baax a baax ci Daaru Salaam ak Daaru Salaam 2 dinaa wax sax ci biir euh, euh, jowaal gi yëpp kon loolu dafa am solo torop torop torop ci liggéey bi ndax jàng mënul ñàkk loo am am am te jàngloo ki jàng bu ñëwee mën na jaar sa kaw looloo waral Alpha Dev moom li muy tekki mooy jàng ngir suqaliku moo tax lépp lu ñuy liggéey rek jàng ba moo ci jiitu nit ki mën a jàng mën a xam mën a ràññee loolu suñu ko defee ENDA ñëw indi contribution am liggéey bi dafay gën a yaatu liggéey bi dafa gën a am njeexital kon ngeen xam ni programme bi ngeen di nekk programme bu am solo la dafa rëw wër Sénégal newul fii ci Joal rek mi ngi ba Sokone mi ngi ñooro mi ngi également fële ci Fimela kon da ngeen a bokk ci programme boo xam ne bu mag la buy dem fii ba deux mille vingt six kon am nañ yaakaar ne liñ fi gis lépp lu am solo la di gërëm nag bu baax a baax ñi nga xam ne jóge nañu Sindia jóge Kiñaabuur jóge Popenguine jóge Ndaayaan vraiment am nañ ci ñoom mbégte lool lool ci seen teewaay fii di nuyu bu baax également madame le maire bu Sindia donc ndax teew na si jataay bi di ko jox wàccuwaayam di nuyu également délégation ENDA bi yëpp ñoom Marie-Louise yi nga xam ne teew nañ fi ak collègue Alpha Dev yëpp Horizon 3000 amoon na yéen a teew fi mais xat yi moo ko waral mais ñun suñu xol sedd na trop trop trop ndax li pièce théâtrale bi wane rek mooy temu tey bi nii fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp fexe ba métite li ñuy teg jigéen ñi it mën a jeex tàkk te loolu pièce théâtrale bi ngeen fi def daf koo wane dafa tënk li nga xam ne rek mooy solol bis bi kon ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax a baax ndax dafa guddi te timis bi mi ngi waaj a jot animation bi ngoyaan ni vraiment suñu xol sedd na si bu baax a baax di ñaan yàlla rek lépp loo xam ne nas nañ ko fi rek ñëpp mën koo liggéey ba njëriñ li mën a am si njaboot gi ba yokkute mën a am si jigéenu Joal mais mën a am également si jigéenu Sénégal yëpp sant nañ leen bu baax a baax gërëm na ngeen baal ñu wax wasalaam. di leen gërëm monsieur le DG jaaraama sa ñu ngi fi yeb yebal si parce que depuis ñu nekk ak ñoom ba léegi gisuñu ci dara loo xam ne mu ngi ñuy jaaxal ñoom ñoo lay woo ba mu jig yow da ngay rus yenn saa yi papier buñ ko soxlaa dañuy woote ba yow sa bopp da ngay rus parce que ku nekk xam na ne mairie liggéey bi dafa chargé mais. duñ la bàyyi Abdourahmane ak Ndiaga mention spéciale à eux bu ñu ñëwee ci journée bi tey nag li ñuy wax rek mooy jigéen ñi mënuñoo dem bàyyi góor ñi parce que nag liw bi liw bi ngelaw li la nit ñi buñ fi toogee tey seen borom kër yi ñoo leen bàyyi kon man mën nañ ne 8 mars niñ ko gisee au niveau international ak niñ ko gisee Sénégal du benn parce que nag ñun waxuñu ne jigéen na jiitu góor waxuñu ne tamit jigéen dafa yem ak góor parce que yàlla moo bind te yemalewul te yàlla dafa ne ci alxuraan arijaalu xawaamuuna alal nisaa kon du ñu def lu dul topp seen ginnaaw mais li ñuy laaj mooy nañ ñu jox suñu place ci société bi place de décision na ko jigéen ñi fekkee parce que ku décidé wul lu ñuy décidé fekkee woo ko dañuy décidé contre yow wala ñu décidé la loo xam ne yow bëggee woo ko woon noonu kon li ñuy laaj mooy. instance de décision yi nañu ci volé liñuy laaj moy comme journée internationale de la femme bi accélérer le rythme manam liñuy jox xébuñu ko mais nañ ko yok lolou lañuy laaj nañ ko yok moy fépp fuñ né ne jigéen ak góor nga fa nañ fa fekk jigéen parce que nag euh, recensement yu mujj limu woné dafa né Sénégal góor ñoo moo ëpp jigéen ñi mais nak entreprise bo boo ci demee liggéeykat yi jigéen ñi la même école man enseignante la mais école léegi boo demee jigéen ñi ñooy raw toujours waxoon naa ko keroog kon am na place boo xam ne ñu ngi koy jot mais dañ ne doyul nañ ñu gën a gunge parce que waxuñu ne mun nañoo demal suñu bopp mais dañu ne nañ gën a gunge nañ ñu boole xeebuñu liñ ñu boole mais nañ ñu dugal ci digg bi loolu lañu ñu bëgg ah di ñaan yàlla journée bi yàlla bu mu doon suñu mujjeelu journée lépp luñ fi jëlee tey na nekk lu ñuy jëriñ parce que bu ñëk ba ay at ci ginaa dañ doon gis journée de la femme jigéen yi dañuy organiser xumbaay rek fecc ak woy rek ak tëgg newuñu ne baaxul de mais nañ ci boole loo xam ne buñ fa jógee tey bu ñu nekkoon ci heure dina fekk ñu yegg diis te loolu war na mën a ne nag parce que liggéey yëpp ñoo koy def di leen ñaanal a Awa Diagne groupement bi yàlla nañ ko dégg ca kaw ca kanam sagal sa jëkkër comme ni ngeen ko waxee yàlla nañu yàgg di sagal jëkkër yi parce que loo rek lañ ci am jigéen lu mu def rek ngir lu neex borom këram ak lu neex njaboot gi la te dañ ne boo defaree benn jigéen defar nga société li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla nañu ko yàlla may bépp jigéen bu jóge ci beneen dëkk tamit ñëw ngir journée bi tey yàlla na la yàlla delloo si jàmm ak salaam.